kese monde de la lutte ñoo waroon daje ak CNG pour ñu waxtaan boo xoolee président yi ne ci làmb yëpp ñu ngi fi ñi doon wax ci ñaari abse abse yoo xam ne nii solo la ñaari benn bi mooy nan la ñuy def ba nit ñi mën a beneen bi mooy nan la ñuy def pour ubbi ji bi ci gën soxal nag mooy nan la def pour nit ñi ñàkku nan la ñuy def pour ubbi nit ñi ñaari abse euh, ñaari abse yu solo la tey làmb toll na foo xamante ne nii jàpp nañ ne war nañ ko mën a organiser ci ay pexe ñu doon xool yan pexe lañ ko organisé ah ñoom bi ñëwee li ñu proposé mooy nañ fexe euh, mercredi bi di ñëw ñu sensibiliser nit ñi famille lamb yëpp ñëw pour ñàkku bu ñàkkoo ba pare ah dinañ woon autorité yi neen kat ñun pare bëgg a bëree wala bëgg suñ lamb ubbi moo tax ñu ne tey dinañ ñëw nit ñi pour ñàkku te yaakaar naa loolu lu am solo la bu ñàkkoo ba pare nag ah dinañ wax autorité yi xamal ne leen nit ñi ñàkku nañ ba pare nan la ñuy def pour ñu ubbi suñu lamb su fekkee ubbi ñu lamb ji nag ah. monde de la lutte dinañ def nag li nga xam ne mooy moo leen war ci réew mi foofu la gars yi toll foofu la ñuy waxtaanee di avancer léegi à part am na beneen rencontre boo xam ne war nañ defaat pour gën a avancer ci li nga xam ne moom la ñuy def pour lamb ubbeeku mais daal li ñu gën a soxal mooy ne nit ñi ñàkku ñu bi lamb ji. ci campagne de sensibilisation boobu wala ñaq bi léegi c'est obligatoire ku ñaq ñëw ci lamb ji wala da wax mooy ni ñu bëggee mooy képp kuy dugg ci lamb bi mooy ne gis na ne kii ñàkk na pare day mën a ñëw pour séance làmb boo ñëwee da ngay indaale sa carnet wane ne ñàkk nga takk sa masque def gel pour dem loolu nag suñu waxtaan bopp la ñun àggagul ci li nga xam moo mooy autorité mooy loolu la ñu waxtaanee ak waa CNG nekk ci projet bi boobu ne ni ñuy def rek tout le temps pour fexe làmb ubbeeku te nit ñuy def pour làmb ubbeeku nag dañuy xool li réew mi soxla ñun ñu jàppale leen ci ànd ceeg ñoom pour mën a ubbi làmb mhm. ne nii comme loolu ngeen jàppagum nan ngeen nan ngeen nan ngeen fas yéene doxalee a jot ci information bi ne ku bëgg làmb ji ubbi gars yi waaw xam nga tey euh, Ndeye Mbacke boo gisee fii réew mi toll fépp foo nekk yaa ngi gis nit ñi ni ñuy wàññeekoo ku ne xam na ne sa bopp nit ñi daawuñu deewee noonu kon tey bu nit ñi deewee noonu yaa quelque chose am na lu xew ba nit ñi di deewee comme doo comprendre tey loolu mel noonu soo amee ñun la lutte li ñu war a def mooy li état bi ne ñu ne ci jàppale état bi jàppale réew mi pour nit ñu vacciné wu mën na dem si yenn activité ndax mbas mi kenn xamul kañ lay jeex léegi nag leneen mooy saafara bi pour ñu vacciné wu ba pare jël suñu ay mesures barrières bu ñu vacciné woo ba pare dinañ xamal état bi ne ko nag lamb vacciné wu nañ def nañ ñu war def yëpp li ñu pare mooy ñu ubbi ñu làmb nag pour ñu mën a dem ubbi lamb tamit du la ñuy ubbi lamb bi stade yi pour fees ci ay nombre de places yoo xamante ni promoteurs yi dañ ci mën a gis seen bopp mbëri dañ ci mën a gis seen bopp te it askan wi yeseen làmb dañ mën a di dund làmb comme événement yi fa war a am ndax tey ku xam euh, samedi ak dimanche événement yi ma war a am ak dimanche bi di ñu war a def mooy premier bi mooy mercredi incha allah à de huit heures ñu ngi appel pour képp koo xam ni bëgg nga làmb wala nga nekk famille làmb ñu ngi lay woo arène nga ñëw vacciné wu soo vacciné woo pare nag nañ teg cinq xool na lañuy def ba jotee njiitu réew mi ba nga xam te nañ mën a waxtaan ba ñu mën ubbi làmb ji ñëpp ñëw di seetaan si yoo ay carte de vaccination ñëw ñu xam ne làmb yëpp vacciné woon na ñu ngi seetaan làmb comme ñu ko bëggee merci ko waaw am mbégte rek ci dalal bi am mbégte tamit ci monde laay tey dajee pour waxtaane li nga xam ne mooy làmb waxtaan pour làmb jëm kanam ndax buñ amul woon expérience bu a dajoo pour waxtaan kon yaakaar naa duñ mën a benn solution moom ne nii dina avancer ñëpp wala dina avancer monde mbëri nañ ko jàppee noonu promoteurs yi amateurs yi xam ne nañu fexe nit ñi vacciné dem seetaani lamb boo lamb yi mën am te bëgg sa mbër bëgg sa fayeeku war nga ko mën a ñaax pour nit ñi dem vacciné wu pour ñu mën a organiser lamb yi normal